salaamaaleykum wa rahmatullah mardi 3 mars 2020 ñu yëg leen ci yëglekaay gi yëglekaay gi di sunu làmbkat dafa ñëw ñun ci Balla Gaye numéro 2 muy avertir kii de Modou Lo Balla Gaye gat nee na Modou nanga xam ne kii nga xam ne moom moo daan Tapha Tine war naa mën a daan képp koo gis ci làmb ji maanaam daal da koy wax ne kii di Ama Baldé war na la mën a daan moom bii de bala gay numéro 2 kat yemul foofu ndax dafa ñëw ci Bombardier di b cinquante nee na bala moo arrêté lii di lamb daal nañu ko ko jox mu bëre ak moom te Tafatine kat waruñu ko lim ñi nga xam ne ñoom ñoo ragal Tafatine buñ koy lim buñ ko limaale moom bala Gaye ndax daan na ko ki nga xam ne moo di Siteu nag Siteu mu ngay entraîné Quench ak Mama Lamine ak ñoomin seen parce que kat jël na combat bi nga xam ne moom la war a bëre ak Papa Sow au sérieux yi nag. xaw naa doy waar ndax Sitor Ndour ak ki nga xam ne ñoom la àndal dañ leen di déglu au CNG incha allahu rabbi samedi la ñu wax waaye li nga xam ne moom moo di Boy Dakar. Boy Dakar kat dafa daan ki nga xam ne moom moo di Tigo xaritu yaayam ne ko kat bu fekkente ne Tigo dafa nar a déposer lii di yaakaar na ne moom mii di booy Dakar yaakaar na ne Tigo day ñàkk lii di recours am wala mu ñàkk lii di xaalisam lay goote kat buur la fa nga xam ne moom moo di Thiès ca làmb jafa amoon diggante mag daa bu Texas ndax da ko daan jël bu leer woon ko fii moom moo ko moom waaye ordinateur kat mën naa yëkkati loxo ba ca kaw ndax diggante le 27 février ba le 1er mars dafay daan li nga xam moom moo di euh, làmb yi am foofee ca ndàngaan waaye ki nga xam ne moom moo di combat bi amoon diggante Ousmane Gandigal ak Pacham daal amut benn verdict ndax ñoom ñaar kat dañoo mujj a match kon dafa mel ni lamb jooju kat bëri lul njëriñ ñi nga xam ne ñoom ñoo di amateurs yi waaye record yëgale kaay dafa ñëw ñun ci li nga xam ne moo di arbitre yi arbitre yi kat ñoom dañoo ne ci grève waaye ba ñu nekkee ci grève Sitor Ndour ak Malick ngoom dañ leen a aye ñu dugg ci Adrien Senghor keroog dimanche ba ndax dañoo jël yeneen arbitre yoo xam ne ñoo ngi jóge Palmarin pour arbitrer lii di làmb ji làmb ji nag ba léegi ci record yëglekaay ci xalima Abou Ndour malaise la ñu tuddee li nga xam ne moom moo nekk ca CNG ci ñaari at yi daal malaise bu doy moo fa am ndax kat arène bi dafa doy waar lii di VIP yi bëréwuñu li nga xam ne moom moo di violence bi dafa yokk ci làmb ji kon mbokk yi loolu la ñu indi woon ci yëglekaay jërë ngeen jëf moo ko waa Leewtoo TV leen ni leen gërëm leen sant biram ngeen ànd leen si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi beneen bi maa ngi leen nuyu di la ziar maa ngi lay dellu ziar bu baax Ndeye Coumba di la nuyu bu baax a baax di nuyu mboolem ñuy suivre ci Leewtoo TV ak ñi ñuy sànni xeer yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. mbokk internet yi yaa ngi leen di sama mbokk internet yi waaw sànnikatu xeer yëpp maa ngi leen di nuyu xeer yaa ngi dal bu baax a baax. noo xam ne que yow ak Babacar yëpp benn lañu Babacar moom dafa nekk ak yaay si soxnaam di noppalu tuuti rek après dina ñëwaat euh, dellusiwaat sunu biir biram na ñu ñëw ak euh, sunu lam sunu lam moom dafa xëy di eggali interview mu amaloon ak Balla Gaye démb moom nag mi ngi wax ne ne moom daal euh, képp koo xam ne daan na tafaatin mun na daan kon ku ne mi ngi wax tamit mi ngi tàllal loxo ki nga xam ne moom mooy Bombardier mi ngi koy ñaan ko balaa muy bàyyi làmb daal na fexe daal ba bëreeg ak moom maanaam mu jël revanche am neen daal tafaatin aussi c'est un potentiel adversaire maanaam génnewu ko si mbër yi nga xam nu mën a bëre ak moom biram waaw jërëjëf Ndeye Comba xam nga Balla Gaye moom bu waxee loolu dañu jàpp ne wax dëgg si yàlla wax na lu mu war a wax nag ndax daan tafaatin ba pare ñu naan ko da nga ko ragal euh, xel nangu ko euh, ba pare tam digganteem ak Bombardier dañ ko war a leeral parce Euh, un zéro la nañu fexe kay beneen combat am bu ñu xam ndax 2-1 lay doon euh, kii wala 2-0 lay doon wala 1-1 lay doon donc euh, am na ci plein droit te kii di Ama Baldé manière bu mu daanee tafaatin war na ne amut benn mbër boo xam ne mën na taxaw ci arène bi mënulaa daan kon dafa mel ni day jox Modou Lo ay ay ay affaire mu mu gën a waajal xam ne Ama Baldé du mbër bu ñuy xeeb. ok euh, journal aussi mi ngi xamal ki nga xam ne mooy Siteu mi ngi waajal combat am la 5 avril moom ak Papa Sow mi ngi koy waajal nag bu baax ba ANSEC ak euh, waa écurie Lansar parce que nee nañu aussi journal bi ñu xamal ne mi ngi entraîné ak Quench ak ki nga xam ne moom mooy Mama Lamine. waaw euh, Siteu day entrene bu baax sax moo ko war ndax dafa Papa Sow kaani xeeñ la kaani xeeñ li ma ko waxee mooy day mbër boo xam ne day attaque day bëre te nag neewul doole. donc euh, vu que moom laay bëreel gàtt na xëy na nii rek ma xaw ko euh, négligé ak la ñuy wax ñoom waa Lamsar ne entraîné wuñu pour taf Papa kese dañoo bëgg daan Papa pour dem ci keneen kon am na fu ñu teg seen bët donc yoon la mu war a vraiment jël ay compagnie di entraîné ñoom pour gën a waaj combat bi journal sunu lamb ak roko ñoom ñëpp nag xees nañu si nga xam ni euh, mooy grève arbitre yi nee ñu nag ki nga xam ni mooy euh, Sitor ak compagnie ak yeneen moroomu arbitre ñoom ñëpp daan leen convoqué si commission discipline et pénalité bi nga xam ne Babacar Diouf moo ko jiitee samedi bi incha allah. waaw xam nga kër de moom bu fekkee am na ay règlement bu fekkente ne kenn jàpp nañ ne peut-être la ñu def méngoowut ak règlement wala leneen dañ leen di entendre ci commission discipline ah. dañuy xaar rek euh, lan lañ cay waxtaanee du du weesu lu dul li ngeen revendiqué du nii wala nii la ñu waxtaan ak ñoom ni ngeen ko jaaree ak ñoom in seen parce que bu ñu waxee règlement et discipline rek dañoo jàpp ne xëy na dañoo juum loolu la ñoo ñu foog waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo brindi seen préavis de grève xam ne lii moo leen naqari ñu soulever que indi ko ci table CNG euh, yaakaar naa ne euh, waxtaan daal moo ci gën te ñu ngi xaar fu wanant di mujjee ki gëtam suñu jógee nag suñu lamb ak record bi nga xam ne noo partagé information boobu record nag si xalima abuno dafa ñëw nag joxe information boo xam ne moo gën a leer parce que nee nañu nag ñaari arbitre kese la ñu convoqué muy Sitor ak ki nga xam ne moom mooy euh, Malick Ngom nee nañu parce que ñoom noo gën a fës si xeex bi moo tax commission discipline et pénalité boobu convoqué leen samedi bi waaw euh, tàgge boo gis dafa am jàppal ma diw euh, Malick ngoom mooy secteur général te ki nga xam ne moom mooy Sitor mooy président donc bu fekkente ne seen euh, groupe boobu dafa am loo xam ne dañ koy ñaxtu Euh, pour man sax jarul ñuy woo ñëpp nañu woo bopp yi waxtaan ak ñoom xëy na looloo tax euh, te aussi ñoom ñaar nag ñoom lañ gën a xam ci làmb ji parce que quoi qu'on puisse dire xam nañ yeneen arbitres yi waaye bu caaxaan jeexee boo doon defoon micro trottoir tey di laaj ñan ñooy arbitre làmb ji ba watul Malick ak Sitor lañ lay wax donc euh, c'est normal que ñu convoqué leen boo ko defee bañ fa jógee ñoom danañ dem rencontre ji seen ñi ko séqal wax ak ñoom la nga xam ne moom la ñu waxante ak CNG journal bi aussi si Xalima Abounou toujours moom nag am na benn gëstu bu mu def nee na nit ñaa ngi wax naan waaw CNG ñoom nekkuñu si yoon mais nag Abdou euh, Abounou dafa dem gën a pousser bi nee na nag euh, aussi arbitre tamit aussi am nañ seen part de responsabilité parce que nee na mën na comprendre seen revendication bi yëpp lu si ëpp daal euh, mbirum xaalis daal moo si moom moo si jiitu te nee na ñoom mën na comprendre des fois aussi da gis ñaari week-end teg loolu même arbitre toujours nooy ñëw arbitre officier semaine bi ñoom na ñëwaat beneen semaine bi si des yeneen arbitre yeneen région yi ku su mel ni ay Fatick ak Palmarin ñeneen ñi ñoom euh, aussi mën na comprendre ay mbër euh, entraîné ay weeri weeri weer promoteur aussi def seen xaalis yëpp pour lamb ji jour ba jot na ne lamb ji dafa yàqu ndax arbitre yi ñoom ñoo ñëwul moo tax nag CNG wut beneen euh, roue de secours dem na jëlee yeneen arbitre si yeneen gox yi pour mën a sauver week-end combat yi amoon week bii biram waaw loolu moom c'est tout à fait normal match <laughs> waaj combat yi comme ni nga ko waxee promoteur yeeg mbër yi kenn ku ne ñu jox la xaalis nga préparer ba jour ba ba mu des ñaari fan par exemple ñu ne arbitre yi amul léegi combat bu du am loolu moom beneen affaire la donc il faut ñu wuti solution te solution bi mooy jël ñi mën a jël place ñooñu ñu sauver journée yooyu def nañu ko mais boo seetloo arbitre yëpp presque palmarès lañ jógee euh, bon euh, danañu continuer ñoom wala dañuy jëlaat ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ñoom Malick ak euh, consort ak ñoom Sitor ah loolu daal ba ci kanam tuuti parce que <laughs> li li ñu naan daal jaalu jaalu kii la jaalu jaan la waaw dugal ci baaraam daal dese naa waru ndey kumba euh, ñëw Abou tamit nee na euh, ñaari at yi ñu génn daal CNG daal mi ngi traversé ay ay crise daal la traversé nee na malaise am na VIP euh, mëri mag yi amuñu combat violence aussi mi ngi si biir làmb ji biram waaw lamb ji eh, jaxasoo am na ci parce que boo seetloo ci ñaari at yi non seulement VIP lu ñuy bëree bëriwul bu ñu bëree ci at bi passé bëriwuñu ren bi benn VIP presque taxawul xanaa si teg Papa rek la ñuy naan comme mooy combat bu fi gën mag ci loo xam ne xam na nañu ko donc boo seetloo loolu wax dëgg si yàlla boole koog arbitre yi grève fii nga boole koog euh, euh, am na ay démission yoo xam ne am na déjà au niveau du CNG malgré que am na ko démissionné ñu dugalaat waaye am na ko démissionné ñëwatul ah Yékini gis nga bëriwul lu muy teew muy tuddee turam jàmm bëri na daal ñoo xam ne ci réunion sax pour ñu teew dafay jafe te pourtant ci lañ bokk ñoom Abdou Aziz mbay ak ñëpp kon yëglekaay bu waxee loolu euh, am na ci plein droit parce que yëf yi kat fu mu ne nii CNG daal bu caaxaan jeexee dañu war a toogaat daal xoolaat ndey kumba ñu jeexalee nag ak Leewtoo point net foofu nag ñi nga xamante ne ki nga xam ne mooy Hyacinthe Sarr doomu Amoura Sarr mi ngi préparé galaam bu le 22 mars teg fa nag 2 euh, millions 500 foofu si te gaal gi biram waaw terrain gaal gi namm nañ ko fa bu ñu déggee 2 millions 3 millions 2 millions 500 rek suñu xel dem ci terrain gi waaye Hyacinthe saar dañ koy naan amateur yi muy amateur lamb yi yépp ak mboolem composante lutte yi nañuy ñëw xool parce que doomu champion la il a mérite mu dugg ci làmb ji euh, kii gën a xool du du tey rek la ci dugg nag yàgg na ci waaye lu ñuy wax mooy dañuy lancé appel ñëpp nañ ñëw nañu ñëw muy journaliste muy ñëpp ndey ko mën nag ñun waa Leewtoo ku ñu fa dëgg nañu mas parce que euh, yaa sant ci ñun la bokk mhm. Euh, Biram nag si kàddu yoon leen tàggoor leen jox di daje suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama euh, yaay mère Sow sama doom Mouhamed Diouf Corona euh, moom nee na léegi ci jàngi de sol masque parce que nee na dëkk bi léegi wóoru nuyu Astane ne chéri Khadija Diallo depuis Italie ak Parcelles nuyu samay bouchou samay doom Maam Diarra Penda ak ki nga xam ne mooy Rokhaya ak nag sama xaritu bopp muy Grand Fallou depuis Parcelles Assainies nuyu Abdou Gueye depuis États-Unis Baye Fallou jàmmagal Papa Cité chéri Khoudia Seck kooku moom mention spéciale moom xam na man xam naa di nuyu aussi ki nga xam ni mooy Aliou Ndiaye di nuyu euh, euh, Babacar depuis ak yaay naan ko waa Leewtoo namu na la nuyu nga xam ne mooy si Diagne xeetu Babacar yooyu ak ki nga xam ni mooy euh, kan sax encore tuuti yaay Sarr ah. <laughs> yàggumaar yaa ngi si biir corona waaw Ndeye Comba noonu la waa nuyu mbooleem ñuy suivre rek ah euh, ñi ñi ñi ñiy sànni ak ñi dul sànni ñëpp nuyu nañ leen ah fàttewuñu kenn waaye nuyu Babacar bu baax fa mu ne tene ah. ñu koy wax mu euh, xoolal ñu xele yi bu baax a baax. vraiment ak seen yaay. waaw ak seen yaay Ndeye <laughs> Comba bàyyil tooj waaye nuyu waa Leewtoo yëpp. équipe bi yàgg maar vraiment Mansour euh, Fall bu ñu limee du nu matal waaye mboolem ñu ni ci biir Leewtoo bi waaye itam ndeykumba ñu ngi nuyu waa Ngunjaan waa Pejoor Saamel Càngaay waa Mburwaay waa Joor Badu le phénomène de Mousnakh ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaye nuyu bu baax ki nga xam ne mooy Njaak Sarr ñu ngi koy nuyu fu mëntin waaw waaw ndaag waaw ndaag bu ëmm waaw ndaag bu ëmm ñu ngi koy nuyu bu baax ak Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina di la jaajëfal bu baax baax ndeykumba bàyyil tooñ nag incha allah